jamono fitna ak soxla yu bari ba jaamu yàlla xajatu ci jamono li tubaab di wax la raison du plus fort soo ko doole yaa moom yaa moom taw laay jub sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon saa du taxaw lu dul jigéen maanaam ab jigéen jaam jigéen jur sangam demikian hadden nanta premier ministre wala wala chef d'état defal ngok ya ko ko wante ya koy sété suuf de mo sa kilifa jamonoy film yu bon ci télévision ak ci cinéma jamonoy journal yu bon ak roman yu bon jamonoy yàkkamti jamonoy gaawantu nag jamonoy électronique électronique ak robot mm-hmm. wala jamono joo xam ne kàttan la ñuy jaamu ak alal mooy jamono ji nga xam ne seytaane not na mën na nag léegi daan na bay bàkku seytaane man moo duma kenn xeexatul ak moom moom rek a wéeti géew bi moom rek fi bàkku léegi sëñ bi mas na ne parce que dafa doon joxe exemple ci jamono bi ñu toll man de baag bi dafa dugg ci teen bi ma taxaw di ko lugat di ko xëcc mu diis ba bëgg maa daaneel ci teen bi ma wàcc ko fa dem xalaat leen nag seen xel ngeen seet loolu du ma leen ci wax dara na ngeen seet rek nan la loolu war a mën a demee yaakaar naa ne jamono bi ñu nekk ak ji ñu jëm mooy mooma daf leen di ne yéen ñii lu baax leen tax seen nelaw yi ngeen fànq nelawu leen ba ñu fi jógee moo xam biir bu set la moo xam njël la ay benn benn ngeen ci nit ñi bu leen tasaare woon ci ñi nga xam ne dara jaralu leen lu ñu foof ñu fanaan fii féebal bu ñu wàññi benn la ñuy wàññi ci yéen ndax loolu seeni doom dana ko dana ko ñi ngeen mel dana ko mel yoon bi ñu jaar de guddañul ku juddu yaay yées noo ngi toll si jamono joo xam ne mën nga ne bu téeméer dee ñaare mucc bala yàgg ñu àgg si jamono joo xam ne bu junni dee ñaare dem àjjana ñu ci def ñëpp safara buñ ko weesoo duñu àgg jamono boo xam ne bu fukki junni nit deewee kenn nay dem àjjana ndegam kenn dana ca dem àjjana yoon wi la doomu aadama yi jaar te gestu wuñu sax seen gannaaw doxuñu ndànk dañuy daw jamono boo xam ne dem nañ ba góor jigéen yi ñu reconnaître leen jox leen seen droit yépp ba ñuy def seen congrès yemuñu foofu ñu dem ba décréter ay loi góor ak góor di sëy kenn mosu ko dégg kenn mosu ko dégg dara jaru ko ku am xel da tiit xamu nag ku xamul dara waa sow yi muy tubaab yi walbati nañu sunu aada yi walbati sunu xel yi walbati sunu defiin walbati sax sunu bëgg-bëgg lépp ñoom rek la duy roy waxuma sax fii xëy na ci Tuubaa gi waaye demal ci dëkk yu mag gi looy gis loo mësul gis rek loo fooguloon ne dana am rek kenn du wax kenn dara christian amatul bu ñu seetee nag xaddis nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci mujj jamono seen jamono